wa rahmatullah sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. ci bi kilifa mu ngi jiital ci kilifa jotaay bii di sëriñ seex ak sëriñ Ahmadu mu tedd mi. ak sëriñ Ahmadu mu tedd mi. ak sëriñ Ousmane. ak mboolem seeni rak yin àndal. nee na mi ngi leen di ñaanal suñu borom nangu leen seenub liggéey. nee di rafet lu baax liggéey bi. sunna su rafet la. nee na lii sunna su rafet la. yal na leen sun borom fay leen tiyaaba yi sun borom digle woon ci sunna su rafet. nee na xam na bu baax xat-xati jamono. nee na xam na kenn ku ne yitte ji nga am. waaye nee na moom mii ak ni mu yaafuse bàyyi seen yitte yëpp ñëw fi moom. waaye ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw fi ñëw fi moom. nee na moom kon ab soññee la koy mën a jàppee. nee na yéen yéen a ko wuutu fi liggéey bi. nee na nee na képp ku fi mënta ñëw ci ñu ci ñoom ñii rek yéen ko fa wuutu. ginnaaw yéen a nga ko fay taxawal yàlla na leen suñu borom fay aw yiw. ngeen dëppoo cee ngërëmul sëriñ Mouhamadou Moustapha te yàgg koo def. nee na ngeen jégal ko ñàkk mën a wax gi. sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziyaare bu baax di yëkkati ay kàddu yu gàtt rek di kàddu cant ak kàddu mbégte ci ko teg sa loxo nga jotti leen ko sunu kilifa sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou ak sëriñ Ahma ak mbokk yi fi teew yëpp. kàddu yi doon kàddu yu jóge ci bokki taalibe yi ci turu diwaanu diiwaanu Muridina di la wax ne tey jii am nañ mbégte mu rëy rëy rëy ci teew gi ñu teew ci sa kanam te wuutalewuñu ko ak teew ci kanamu sëriñ Ibrahima ci teew ci kanamu sëriñ Ibrahima wuutalewuñu ko ak teew ci kanamu sëriñ Cheikh wala sëriñ Bàkki Madina mu lépp di nga xam ne lii bi ko bokk yépp maasee xalaat ñépp rafetlu ko ñu jublu ci fàttali konte waaye euh, wettili konte ci ak bokk bokki taalib yi maase xam li mag ñi doon dund ak ñun ñi fi desandi niñ ko war a wéyale te mu doon liggéey boo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a ànd ndax mënuñoo dem bàyyi leen ñoom it duñu dem mukk bàyyi kon lu mu ci mën a doon rek ñu war koo daje ñu war a daje ànd di ko jëf ànd di ko wax ñu am ci mbégte mu rëy ci bi ñu ñëwee fii tey bu yemoon fii neex ndax mel na ne dem nañ kër Cheikh Moustapha gépp ndax wóor na ñëw gi ñu ñëw fii moo dem ko kër sëñ Aliou ñoo yem ci ñun ak faneen fu mënoon a doon ci Darou Khoudoss waaye nag teewul ñi ngi ñaan yàlla ab tàmbali la ren ñu fas yéene at mu jot bu ñu ko yàlla mayee ñu di ko def ci bu ñu jógee fii am na geneen kër goo xam ne dañ ci da mbokk yi dañ ko tànn dañ fa dem mottali ko muy ñaari yoon kër sëriñ Xaadim mu Cheikh Mamadou Moustapha ci loolu lépp nag dara génnu ci ak bokkoo waaye ak fàttalikoon ci ci ab yar ak xam-xam ci aw doxalin ngir euh, mën a wane liggéeyu mag ñi waaye nag ngir mën a jànkonte ak jafe-jafe àdduna ba àdduna bañ noo ŋàbb ndax kenn ku nekk ci ñun rek loolu war naa doon siite mu mel nag sëñ Ibrahima mii ñu tànn tey ñëw di waxtaanee fii ci këram ab yar ak xam-xam ku ci bay aw waar la ci waar wu rëy a la ci bay yow mi it nag mat nga sëkk loolu ci masala yaag say rakk yar bi mi ngi fi jaaral nañ leen fi ñu leen war a jaarale ci ci tarbiya ci xam-xam kenn ku nekk ci yéen it ku ñu déggagul mu wàcc aw yoon amagu ci te loolu nag lu ñu def ci yéen la ñun ñi it ñu war a jaar foofu war fi jaarale suñu njaboot kon bu ñu ñëwee fii defe naa ni ko mbokk yi tànnee du hasard ceet faneen fu ñu mën a demit duñ fa wa duñu génn cadre bi ceet loolu rek lañ fa fekk lépp it delluwaat rek ci liggéey bu Cheikh Moustapha ci am njàngaleem ci njàngalum Cheikhul Khadim kon daal ñi nga xam ne ñuy sant mbokk yépp ci xalaat bu rafet bi ah di di leen sant seen teewaay waaye euh, di sant njaboot gépp di soññwaat sunu bopp nag di soññwaat mbokk yépp ñu xam ne sëriñ bii fi ne di sëriñ Ahmada yi dara ñuru ko lu dul bokk gi bennoo dara ñuru ko it lu deesu njàngalem sëriñ bi ñu wéy ñu wéyal ko tax loolu rek mooy liggéeyam amu fi baneen baneen baneen yitte waru ko am jot na ni amu ko lim na woon mooy loolu rek ñun ñi loolu dong mooy suñu yitte waaye nag bu ñu boolee efoor yi bu ñu boolee yitte yi ak pexe yi ak xalaat yi dana gën a feeñ dana gën a mat ci gën a dana gën a am am solo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sëriñ bi yàlla suñu boobu yàggal su taxawaay liggéey bii nga fi nekkal di ko liggéeyal Seexul Xadim ci kër Seex Moustapha yàlla la ci yàlla defal ndam ndam lu mu mës a mag ñi na la ko defal ba defal lu ko ëpp cam yàgg ca defal ko ñi ngi bokkal taxawaay ñëpp nag ci kër gi ñi ngi taxawaay ñëpp ci kër gi yàlla leen yàlla yëkkati defal leen ndam yëkkati leen ci kanamu lislaam ba ñëpp xam ne ah, cër bi Sëriñ Tuubaa cëraloon Seex Moustapha dara sikku ci lépp ngi dund ci ñëpp ngi koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Eh, Cheikh Ibrahima Mbacke daa waxoon sëñ Basile la imam ak sëñ Cheikh Lo Daïra ak sëñ Xabbaan Mbay wax na leen ni sëñ Moussa li mu bëgg ci njaboot gi faaw dana am waaye ñami amee ci seen loxo ñu am tawféex la ñuy doon tawféex ji mel na nun la ko suñu borom seddee ndax fii ñu ci àgg ci dox mag ñi bëggoon nañ ko waaye agsi wuñ fi. ñuy sant yàlla bu baax a baax nag tey fet di la waat sunu laxasaay te jëm ci kanam liggéey bi des na lu bare bari ñu fas ko yéene ànd ak yéen ngi leen di ñaanal fan wu gudd ak barke di sant itam mbokk yi nga xamante ni ñoo jóge fii di ñëw ca diwaan ba yoo xamante ni taxawaay yee ñu war a taxaw yépp mat na rafet na waaye ñuy fàttali njaboot gi rek waxtu wu ci nekk ñu leen di gën a dimbali ci taxawaay su ñëwee lu ñu fa wax rek noo leen ko wax loo lu ngeen leen joxe tam agsi na waaye du dara du seen yitte rek lu dul rek dundal ndono li nu fekk rek te mu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha mu àndoon ko ak suñu waajur fas nañ yéene daal laxasaay yëf yi daal wóor na nu moom bu fekkoon ak roo koy suuxat nangu nañ cee def suñu gas gannaaw la ñu cogroo nag yitte ju kawe rek la ñuy laaj ak leen suñu borom dénk ci wërsëg loolu noo ngi soññi ñëpp ñu def ci rawatina bis bii ñëw sëñ bi moom sant mënta weesu sant ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal gis nañ taxawaay yi sagub kër gi nga sagub yoon wi nga yaa ngi dundalit li ñu la fi bàyyeeloon noo ngi lay ñaanal bu baax a baax di ñaanal itam sa bokk yi nekk ci sa wet buñ waxtaanee kër gi mel na ni waxtaane nañ kërit doom doomi sëñ Moussa yëpp ndax ñoo bokk benn ëtt bu ñu yaroo ñoo bokk ne li ma waxoon léegi rek ni sëñ Moussa nee doom joo làmb man ngay daj loolu lu wér wér la te it ne woon ne it du jur ku yaafus du ma jur ku ñàkk jom loolu feeñ na ba agsi ci fii ngeen seen jataay yii toog ndax noo ngi ci dëkk bi di jaxasoog nit ñi di xam li xew nu gisoon loolu naqarit buñ ko mënta waxit buñ génnee fee dana dan dan ko biral buñ ko biralu fiit buñ génnee danañ ko yàllu ndax nit ñi moom ñaar yooyu doo nga fi ne dañuy biral mbaa ñu yàllu waaw waaye bu nu gisee loo xamante ni nii wóor na ni ni leenu gis nii dong la war demit daanu ko jëri ci kaw noo ngi sant daal seenu doxin bu baax a baax yal na suñu borom boole dimbali boole nu taxaw la 16 la ñuy dem kër sëñ xaadim moom Cheikh Mouhamadul Moustapha fas fa yéene waxtaane ni ñu defoon rek lépp itam mooy wane rek taxawaay bi sëñ Moussa amoon ci yar ak li ko sëñ Tuubaa dénk sëñ Basiiru Seck wax na ko ci biir waxtaan wi muy bi mu wéradee dani liñ ma battaleel ak ñiñ ma battaleel nelaw xaju fi liñ ma battaleel ak ñiñ ma. dañoo am magum taale bi moo xam ne dafa jàmbaare woon lool lool ci diwaan bi ci bi ma ñëw fekkuma ko fi xaw ma nag ak tëlee ko jàpp waaye lu mën a doon ñu koy xam na xam ne ñu ngi koy bàyyi xel muy sëñ Mor Seck ah, ñi ngi ñaanalit sëñ Ahma Cissé sëñ Ahma Cissé ku amoon maanaa la ci liggéey bi sëriñ bi ku dëggu yàlla na yàlla gërëm yéenam ci gërëm jëfam yàlla ko yàlla xaare àjjana te rajo Serigne Touba jërë ngeen jëf